taxu koo jóg taxu koo jóg mm-hmm. waaye tamit dafa wax ni euh, alal ci boppam mm-hmm. léeg-léeg su ëppee bu ëpp mën naa indi fitna mm-hmm. am amwaalukum wa awlaadukum fitna yenn alal yi ak yenn njaboot yi mën naa dem ba bu jur fitna te fitna nag ashaddu min al qatl min al qatl léeg fitna dina toll foo xamante ni si dina dem ba lawaale ci loo xam ne bokku ci mën naa dem sax ba gaañ koo xamante ni si sóoraale wuñ ko woon mm. moo tax alal euh, nekk loo xam ni lu lu baax la nag ci ab mm-hmm. jullit mm-hmm. mu am ko waaye amin ma nag lu ñu bëgg mu amin ko ci amin woo xamante ni si amin wu dagan la mm-hmm. maanaam bu mu ko carte bu mu ko carte dëgg léegi carte yi bari na lool sax bara fa baree bari ba ñutul ko ay forme yoo xam ni euh, ba tey ci sa portable bii mën ngi ci mën boo moytuwul mën nga ci carte mën ngaa toog sa biir nekk sax kat damay bañ a publicité waaye ñi may waxal xam nan ko waaw sa biir sa léeg-léeg sax ñoom seen wàllu bopp da ngay nekk sa biir portable di liggéey sax ñu cabaxal la ci dara di la di la wan ni la mën ngaa mën ngaa mën ngaa ya kat waaw oustaz jar naa tudd xam nga lu ñi koy def ñoo xam ne lii ñuy def du daganul ak luñ ci mën di jëlee loolu jar naa jar naa leeral bu baax ndax am na ñoo xam ne yaakaar nañ ne loolu du carte bi waaw waaw xam nan ko ñoom hmm. ñi koy def ñi koy def xam nañ ko bu baax a baax kon daganul ci ab jullit déedéet ndaxte suñu borom wax ne innamal xamru wal maysar wal ansaab wal azlam rijsun amali cheytaan macha allah kon dafa wax ni carte ak ak ak yoote ak maanaam ak yenn yenn façon dam yeeg yooyu yëpp day wax ni baaxul ci ab jullit parce que dafay jël temps sallallahu alayhi wa sallam eh, bokk na ca la ma waxoon ni léegi yowmal xiyaam jullit bi di di dem fenn wala nit ki sax balaa séqi tànkam di dem fenn des na ko laaj ñeent ñeent yooya bokk na ci ni la waaw sa sa sa dund gi ci loo ko jeexale sa dund gi ci fi nga fi nga majoré fi nga majoré ba fi nga ba nekk mu kallaf ba keroog ay faat mm-hmm. ana ci lan nga ko jeexale kon oustaz nit ki bu xasee majeur dundam du du ko asalu en tant que julit la wax waaw en tant que julit jii nii bu ñuy wax majeur mm-hmm. mën nañ ko mën nañ ko ci ay at dix mm-hmm. peut-être waaye tey góor fi mu ne nii saa yu tëddee guddi gént am lu génn ci moom mu leer ni kii kon bu amee soxna mën na caa am doom donte que matul dix-huit ans mais bu boobaa kon dafay daal di nekk mu kallaf nga xam ni dafay nekk dafay yenu responsabilité l'islam jigéen tamit mën naa bañ a am sax dix-huit ans waaye teewul bu fekkente ni si bu tëddee bu amee bu amee bu amee bu amee ba yenn âge ba commencé gis baax dara ji génn ci moom par weer yooyu nag su ko gisee donte am gis ni ngi tey suñu borom nag yabal na ci moom ñaari malaaka raqiba ak atiid yoo xam ne ñoo koy bàyyi loo xam ne ko ah yow nag génn nga ci gone na yaa ngi jëm ci mag bu boobaa nag fexeel ba la ngay def na nga sàmmanteeg sa sa digganteeg sa sa borom ci loolu moo tax kon mu ni euh, lam ko njëkk a wax mooy sa dund gi ci yow loo ko jeexale moom lañ la koy laaj mm-hmm. Mm-hmm. beneen baat mu ni ko waaw sa sa waxambaane gi mm-hmm. mm. sa jeunesse bi ci loo ko jeexale sa jeunesse bi ci loo ko jeexale xam nga jeunesse moom am na yoo xam ne mi ngi commencé à l'âge de dix-huit ans ba keroog ngay dem quarante ans ah, peut-être nga nekk foofu waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni nit saa yu demee ba am ñeent fukki at sax mm-hmm. euh, su lu baaxam gënee bari mm-hmm. su lu baaxam gënee bari mm-hmm. euh, safaanam uh-huh. dañuy wax ne kon na takk bagaasam xam ne mi ngi ci yoonu yoonu àjjana waaye dañuy wax ni su demee ba am ñeent fukki at nag lu bon am gën a bari bu boobaa kon na waaj xam ni bu muy tuul mi ngi ci yoonu yoonu safaanam moo tax kon mu ni sa sa sa ndaw ci loo ko ci loo ko jeexal dinañ la ko laaj nga xam ne nag mooy sunu temu tey bii nag muy alal mm-hmm. bokk na ci ca ñetteelu tomb ba nag mm-hmm. mm-hmm. daf lay wax ne la waaw sa alal ji ana foo ko foo ko jële yàlla sunu boroom dina laaj waaw alal ji foo ko ji foo ko foo ko jëlee moo tax moo tax alal euh, bëgg ko am na solo ngir mën cee faj soxla yi yoo xamante ni soxla yu dagat bañ a soxlaal kenn bañ a soxlaal kenn ba mën a téye sa ngor mm-hmm. ndaxte am na alal noo koy fàggoo ba am ko mm-hmm. maanaam doo doo ñaan kenn boo toogee ci mbooloo di wax maanaam di nga moom sa bopp ba mën a wax ba mën a wax dëgg ba mën a wax dëgg macha allah loolu tamit bokk na ci li nga xam ne day dimbali mm-hmm. nit moo tax xale yi foofu dañ leen di gën a poussé nañu ñu gën a jàng métier parce que métier boo ko xësee am rek am sa alal mën a faj sa soxla yi bopp doo doo si bopp kenn kenn du la mën a jiite ci la macha allah macha allah loolu loolu bokk na ci waaye tamit alal ji tamit da dana ni ngi koy fàggoo nekk lu baax te rafet na nekk lu baax te rafet waaw parce que jamono bii léegi ni ñu toll sa ges yi ñu ci bari dañuy wax ni moom naa am rek naa am rek nu ma ko amee baax na ma laaj la dafay publicité wu ma nag maanaam ki nga xam ne dafa wut xaalis ci loo xam ni am polo mu daganul alal jooju dara ci moom wala déet waaw nga dafa ne sàkku ba rek moo daganul xëy na du ñàkk si tom boobu mm-hmm. mais xëy na fom wutin wi mm-hmm. wutin lañ a moo war a moo war a dagan dagan par d'abord bu ñu waxee wutin moo war a dagan nag mm-hmm. mooy wutin woo xam ne l'islam gërëm na ko waroo ko wute ci am wala dañuy bëgg yow mm-hmm. donte que sax da ngay dem di xarmat mm-hmm. Mm-hmm. di dajale di jaay ba kere muy am mën a nekk dara waaye day leer ni la kon sa alal ji moom lew na ndax Yonent bi sallallahu eh, bokk na ci li muy digle mooy yow fexeel ba sa loxo bii sa loxo bii bu layoog moom ëllëg yow man xeam tey eh, Serigne Dieng si saa yoo liggéeyee ba ba dem ba dem ba dem wut loolu wut mm-hmm. ci loo joxe ñu toggal la ci aw ñam mm-hmm. ba ba tibb ba tibb ñam bi ak sam loxo mm-hmm. dañuy wax ne loxo bi mi ngi lay mi ngi lay ñaanal di la gërëm mm. waaw danaan la danaan la jërëjëf waaw ñam yi nga may tibulo day dagan nyam waaw nga may tibulo mm. ma koy tibb nii dagan na maa ngi la sant sama loxo bangi ngi sedd buy macha allah waaye tey jii ni boo ko amee ba ba ko daganu ah tey jii nii boo boo boo ci tibeeb tib rek boo ko yëgee boo ko loxo baa ngi lay lay móolu lay móolu la ne la yaa yaa yaa na la hmm. la yàlla alal yi nga may tibloo ah danga kon kon oustaz euh, doomu adama cërëm yi day looyoo moom dañuy wax ak yàlla mu ngi wax ne ëllëg yow mal xiyaam danaa waxloo seen cër yi hmm, hmm, seen cër yi bu boobaa yow jëmm ji sax danga nga naan ko yow kana wa kan ولا واحد نقصنا برا ماما انتقل الذي انتقل كل شيء والله يبقى كي وحكونا كلا لو رك ماما وحلا لما شهدتم علينا قالوا تخ يدخ ينجي مسيرة لي يبقى انتقل الذي انتقل كل شيء انك تري تري ما دخنا dem faggu ji alal ci am solo la waaye tamit dañuy wax ni même sa njaboot sax boo boo leen di jox ñam wi ñuy dundee loolu tamit war nga koo teg bu wër te lew mm-hmm. waaw te lew ndaxte tey jii am na soxna soo xam ne ci ci ci mag ñi mm-hmm. eh, danaan danaan borom këram demal liggéey yi waaye nag loo ma fi indil fexeel ba mu na na na dagal loo may jox ma koy dugal ci cin bi na fexe mu nekk lu dagal donte que da ngaa taxan mm-hmm. donte que da ngaa ñu ñu ñu fay la ne na man baax na na lew mu tuuti mu bari na lew waaw nag jullit war naa xool moom bu mu xool quantité bi mm-hmm. yàkkamti gi bari na mm-hmm. bari wallahi wallahi léegi ñëw dañoo xaw a bëgg yàkkamti yàkkamti mm-hmm. rawatina nag ndaw ñi léegi maanaam da ngay ci gis koo xam ne moom daal bàmmeel bu sori rek baa la bàmmeel moom bu sori moom naa am rek ndaxte bu boobaa mi ngi wujje ndaxte am na moroomam mu nekk ci koñ bi gis na ni am na ba commencé tekki dañu soxla waaye nag amen bi suñu borom nag dafay wax ci alxuraan ni wërsëg yi su ma koy wàccee dama koy wàccee maanaam ci ci ci toq toq ndànk ndànk ndànk ndànk ba moo ni walaw basata allahu rizqa li ibadi la baxaw fi l ardi walakin yunazzil bi qadri ma yasha ma sha allah suñ jeen si bu ñëpp nekkoon milliardaire xam nga tey hélas du du nekk fii naan mi ngi ubbi ci la duñ am jotam kon duñ am ñun duñ toog fii di waxal bu boobaa kan mooy bale mbedd mi ah kan mooy tabax kan mooy def menuisier naan moo tax suñu boroom daf ni nag ku ci nekk dama lay jox la nga toll moo mu def ko misaal ci taw gis nga taw bi balaa taw suñu borom muy njëkk a def suñu jees yi suñu borom day njëkk a day day ni aw tàng bi ah tey moom tàng na tey moom tàng na jër ci yàgg mu daal indi aw ngelaw lu féex na mhm. su indee ngelaw lu féex mu commencé nag toog toog ne suri mu commencé sóob bu sóobee nag bu ñu xam ni doy na nag mm-hmm. ba ñu soxlawaat ko mm. moo tax tey boo yàkkamtee sa wërsëg rek mm-hmm. euh, da nga dugg ci la warta dugg fay jógee moo tax mag ñi sax dañ naan la xale bi soo amee bul bul feeñal nëbbutul mm-hmm. waaw mais tey boo mënoon tabax étage ci deux mois du ma ko tabax ci deux mois rek mm. damay damay mool damay mool léegi bàyyi bàyyi noonu <laughs> xanaa looloo taxoon sëñ Fallou naan toq toq gën yuréet moo toq toq gën yuréet macha allah ah. mhm. maanaam damay móol rek bàyyi mhm. léegi ñu ah sa waaye boo demee dem de waay ah. ma jekki rek def fondation mhm. ah sa waay fondation de sa waay fondation la de <laughs> sa waay ah, de ma jekki-jekki yëkkati même su may tuux sax du ma du ma defar kër gi ba mu rafet ma tuux waaw ah, damay bàyyi ba mu ñaaw la ma koy defar ci biir waaw ah, ci biir waaw. daal def ko ndànk ndànk moo tax jullit. Mm-hmm. yeneen bi la mu waxoon mujjug jamono. Mm-hmm. bokk na ci li nga xamante ne si dana guddalu fan mooy mm-hmm. nëbbu. waaw ah, seen mbir yu bëri dinañ ko nëbbu. moo tax kon alal wutin ba. dafa war a dafa war a war a nekk wutin lew lew rafet. oustaz ba tey ci wàllu wutin. Hmm. da ngay dégg amu ku ma dimbali moo tax mm-hmm. may def nagam par exemple jigéen bi def prostituée mm-hmm. da ngay dégg mu naan dama amul ku ma dimbali aw ci ku ma wéeru moo tax ñàkk pexe moo ma ko tax di def mm-hmm. ndax loolu lay la ci jullit bi wala déet waaw sëriñ Dieng si yonent bi dafa ñu jàngal lu am solo dañ ko waxee nag ni ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, lan mooy am koom am koom mu ne am koom du du bari alal joy bari hmm. nee na koom dëgg mooy doylu alginaaw waaw alginaaw laysa bi kasratil maal hmm. al alginaa gina nafs macha allah gina nafs mooy mooy mooy yow loo am mu doy la hmm. loo am mu doy la nga yemale sa bëgg-bëgg ci sa capacité ci loolu boo ko layee rek seytaane mi ngi lay man te julit nag sunu borom moo ko nattoo ni ko yow fii àdduna moom mënoo fee am maanaam bànneex bu wéy waaw ñun jullit suñu bànneex fi ci àdduna bu du bari mm-hmm. moo tax naqar yi ñoo gën a bari mm-hmm. waaye nag loolu bu la ko suñu borom tegee nag danga da nga war a muñ dëgg la waaw ak su loolu nag da loolu taafanta laayoo la ak seytaane bu lay bu lay jay mm-hmm. waaye ak jullit moom ndaxte yonent bi moo gën ñëpp sallallahu alayhi wa sallam waaye bi ko yàlla ni ma def la yonent bu am alal wala ma def la yonent boo xam ne da ngay ñàkk. waaw mm-hmm. ma ma ma bëgg man man ma nekk yonent boo xam ne damay ñàkk. day ñàkk moom yonent bi moo tànn loolu moo tànn loolu. wala bi dafa daan dem ba këram ci ndaw fa tàkk. Mm-hmm. te moo gën ñëpp. waaw te ku ñu bind moo tax. moo tax Seydina bu daan dox ci mbedd Màkka yi sax dañuy wax ni montagne montagne Màkka yi. Mm-hmm. dañuy wax ak ñoom. day wax ak moom. ni ko bu neexee léegi nu soppali ko doon wurus. waaye nag mu ne man. suñ deuxième waaw question jëlee gi nag fan nga ko jëlee loolu dañ koy càmbar béréb bu nekk a suñu borom dafa wax ne wa man yaamal misqaala darratin xayran yara wa man yaamal misqaala darratin charran yara waaw suñu Abdourahmane Mbacke sax rahmatullahi alayhi day wax ni zarra boobu moom bi ma déggee mu koy firi moom dafa wax ni sangalañ ñu wax ni sangalañ lu toll ni sangal waaye dañuy wax ni zarra mooy otom otom mooy lu gën a tuuti pepp suuf maanaam lu bët mënta teg bët nee na nee na Ah. boobaa nag suñu borom nag xisaabam ma pare na kon moo jëm ci sunu mas'uliye ñi nga xam ni maanaam ba pare na waaw incha allah moo tax kon foofu mm-hmm. dañuy wax ni ab jullit moom mm-hmm. dafa war a wuuteeg ku dul parce que saa yoo jëlee engagement ni man jullit laa sart mm-hmm. eh, yi ñu la tëral nga war a wutee alal rek sa nga war a wutee alal ndaxte boobaa dana noppal noppal sa njaboot noppal tamit nga eh, maanaam maanaam sa gox Sénégal dafa war a wuuteeg ci ni ñuy sàkk oustaz ndax alal corruption daggana na wala déet maanaam kii kii wut benn këyit mhm. euh, laaj ki nga xam ne maanaam nangam jox ma nangam ndax këyit gi gaaw xaw a gaaw boo ma ko joxul te loolu mu war koo def ndax loolu loolu mu lay jox loolu daggana na wala déet ah, kooku la ñuy tuddee rasuwa waaw rasuwa yeneen bi dafa wax ni mhm. yàlla rëbb na ki kii ger mhm. ak ki koy ger ñoom ñaar ñëpp ñaar ñëpp la rëbb mais su fekkee ni kii lim def gi moom mooy mooy moom mënta ñàkk ngir mu mën a jot day day am ba léegi loolu day am ba léegi boobaa day yàq société day yàq jikko mm-hmm. dana dana dana waral dana waral tey jii nii euh, ki ñu teg ci barab ngir mu maandu mm-hmm. moom du fa teg du yam ca lañ ko jox mm-hmm. maanaam yow weer wu dee di nga war a am nangam ah kii kat bu ñëwee nañ ko lijjantil dossier bi mais bu ko laaj dara waaye gis na ci rang bi kat bari nañu fa nekk eh? waaye day gis koo xam day jël rang bi ñëw ñëw am fu mu jaar mm-hmm. am lu laa jëflanteeg yow léeg-léeg sax ma ci ma ci ma ci ma ci jàjji ñenn ñi mm-hmm. léeg-léeg sax ñu naan nuyoo murit man man yéen a ngi tooñ foofu nag murit yi ah kon nuyoo murit ah danaan da sawaay nuyool nuyoo murit nuyoo murit mooy mooy garab mooy garab te lool loolu du yoon mm-hmm. ak murit dañu ko yow bul nuyu sa sëñ mukk te doo ko jox te te doo ko jox dara kon nuyu déet mm-hmm. te loolu nag ñu ngi ko jàngee ci yàlla yàlla moo yàlla moo ne saxaaba yi eh bu ngeen nuyetee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu leen ko nuyoo loxo kese wallahi wallahi wallahi lu toll ni yonent bi nga ko jox loxo kese loolu nag dañ lay jàngal ni léew ma mhm. ak ki ni ger macha allah macha allah kon alalu ger mhm. daganul te dafay daaneel économique um réew dafay daaneel baax a baax mhm. sas ñu ngi lay sant baax yéen ñi nga xam ne a ñu topp ci seen émission utu xasida yi tey ñu dalal sëñ Papa Ndiaye xaj ma ko jaar baax baax a baax oustaz ñu toll foofu am solo mooy ni nit war a fàggoo alalam ginnaaw bi ñu xamee ni ab jullit ni muy fàggoo alalam war naa daggan ngir fi mu koy dugal mu mën a dagan ndax bu fekkee ni nga fàggoo alal ji daganul doo ci mën a jaamu yàlla jaamu yàlla goo xam ni jaamu yàlla gu yàlla nungu lay doon kon maanaam faggu gi nga koy faggoo hmm. war naa lew ngir yow sa jaamu yàlla mën a leer hmm. euh, oustaz ginnaaw bi jullit bi faggoo alal ju lew hmm. ndax léegi fu ko neex rek mën na ko dépenser wala wala dafa am noo xam ne dañ ko koo tëralee nii sa alal ji de ko financé nii ak nii ak nii hmm. nan la war a financé alal jooju. waaw ah, macha allah eh, imam xëy na dinaa ci dab tuuti rek. Hmm. ci ci sa fàggun wi. Hmm. nga ne dañ koo jàngee ci saxaaba yi. bu ko defee eh, kii ne régie eh, directeur mën nga ñoo affiché li nga xam ne mooy numéro bi. ñi bëgg a ànd ak ñun ci émission bi incha allah rabbi ñu dugg ñu waxtaanee al iktisabul maal. fi ayatul muslim jullit bi nan la war a faggoo alal ci ak dundam ñu affiché ñu numéro bi incha allahu rabbi bismillah xam nga sëñ Dieng Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu dafa am benn bis ndeysaan ben xale ben xale togg aw ñam jox ko mu barkeelu ci ba noppi mu barkeelu ci ba noppi bi mu noppee xale bi ni est-ce que xam nga fu ma jëlee ñam Bakari ni ko déedéet mu ne ko mu ne ko ñam wii de booba duggaguma woon ci lislaam waaye boo gisee alal ji fa ma ko jëlee mooy dama dama doon njibar hmm. dama bi ma njibaree nag ñu fay ma ca xaalis hmm. Hmm. ñu fay xaalis nag xaalis boobu ci laa toggee ñam wi xam nga lu Seydina Abubakar def dafa dafa looju dafa looju xam ne nit ki lekk na ko mhm. ba mu soppaliku aw suux mhm. ba nekk sa biir yaram mhm. nee na nee na suux waaw eh, maanaam da koy lakk ba mu set bi suux nga xam yaram te mi ngi màggee ci alal joo xamante si lewut ah, sawara moo ci maanaam daal faw loolee rees ci sa yaram bi ba set la sawara mhm. su xoowaa sawara lakk ko ba takk jeex tàkk kon ab jullit war na def attention bu baax bo su ko defee nag foofu ci li nga laaj léegi mhm. ci mi ni maanaam fan la ko war a def mhm. foofu dañuy delloowaat ci ñenteelu tomb ba ca addis ba xadis ba dina laaj foo ko jëlee waaye dina la laaj tamit fan nga fan nga ko dépensé benn jéego wala ngaa jékki benn jéego dina laaj sa alal ji boobu eh, ab jullit war nay war nay am royukaay war nay am ko boo daal tey tey boo ñëwee Sénégal nga gis ni ku mel ni Serigne Saliou mm-hmm. nga xam ne lu mu musaana am rek lu mu musaana am rek ci ci ci yoonu lislaam la koy def tabax ci daara mm-hmm. imaamu tabax ci juma mm-hmm. waaye fan la ko jëlee ci ci mbay la ko jëlee wala ñu mboolem xulafaa yi fi jaar yëpp lekk nañ ñàkku Serigne Saliou ndaxte nag ay dongo la yor mm-hmm. di bay mm-hmm. di jox ay magam ñuy def ci jumaa dëgg la nag yàlla yàlla nag nee na ku ku ku wute alal fu dagan mm-hmm. dugal ko fu dagan dafa mel ni rek ka ba masali xabbatin anbata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu xabba wallahu nga mel ni rek nga nga jël benn pepp dugub maanaam ji ko boo ko jiyee mu sax saxee mm-hmm. sax juróom-ñaari gub gub mm-hmm. bu ci nekk mën naa am téeméeri pepp mbaalu ko mm-hmm. wala suñu borom ni saa yoo ma lebalee ba bëccëg moom fay la gub bi saa yoo ma lebalee bëccëg moom fay la gub waaw kon nag jullit bi ni ngay liggéey su daganee na nga fexe dugal ko fu dagan dégg nag foo ko dugal nag foo ko dugal fu ne rek foofa nga koy dugal ëllëg dana la layoo fa nga ko dugal fa nga ko dugal dana la ah lii kat ba mu ma liggéey fu dagan def ma fu dagan waaye li gën a garaaw nag mooy ak mu ci ba ci mm-hmm. nga jéem koo nag naan da nga koy raxasee ci lislaam nax yàlla daal ak sëlamal jullit su ko nax ndax moom moo la gën a jege sa ñu xol yi nee na la gën a jege sa xol mm-hmm. kon nag alal jullewul mm-hmm. ah boo ko jiimee def fu fu foo xamante ni si fu ñuy fu ñuy jaamoo suñu borom doo jam tuyaaba parce que fa nga ko jëlee daganu kon fi nga koy def tamit mm-hmm. même même fa nga koy def bu dagane tamit bu fekkee jullit yi mu koy defaral ñoom soxla nan ko nag moom hmm? julli yi jullit yi maanaam kii amee alalam fu daganut hmm? ba ñu xam ne lii daganut est-ce que wax na leen ko waaw léegi ñu daal di mu daal di ñëw nag sabaxal leen jàkka hmm? est wax na leen ko waxu leen ko ah. waaye am nañ ñaaw njort ci moom que ni moom fi mu ko jëlee leewut ndax moom bu boobaa jullit yi dañ ci am benn responsabilité boobaa dañ ci am responsabilité waaw ñoom jullit yi da nga léegi yow alal ji day leer ne léwut xam ne fu mu ne xamul foofu xamul fu mu jógee maanaam léwut nga ba xam ne nii léwut ba pare nga koy jëfandikoo boobaa nag naa fekk nga subahaat la maanaam lu dëndam la waaw waaw parce que suñu borom yonent bi wax ni inna al xalaala bayin wa inna al xaraama bayin wa baynakuma umurun mustabihaat la yarma illa wallahi wallahi wallahi dañ ci tey moo tax kon dagan na mm-hmm. mm-hmm. jëfandikool wala leeree ne xaraam na rey oustaz ki ñu dénk ko kees maanaam ñu jël alalu askan mm-hmm. jox la ko nga ñëwaat ci askan bi ngir am loo soxla ci ñoom jël ci alal jooju di leen ko neexale ndax loolu daga na wala déet waa xëy na daa mel ni ma mooy sama ñetteel tomb waaw dañu liñ dese ci wax dafa bariwul quoi moo tax ma dëgg bëgg a yàkkamti dugg loolu maa neex waaw waaw waaw xam nga ñun jullit yi mhm. lépp rek dañu koy dañ koy reye ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nan lañ ko tudde woon Makka tudde woon ko woon al amin al amin lu ko waral kóolu la ci yàlla ndaxte yàlla moo ko defe moo tax dafa bi muy gàddaay ñu dem madinatu munawwar mm-hmm. woo Sidna Ali Sidna Ali mi ngi toll ci fukki at fukki at mu ne ko nag suñu boroom nee na ma naa naa gàddaay mm-hmm. waaye nag ndénkaan lii mm-hmm. diwa ko moom diwa ko moom diwa ko moom diwa ko moom nam la ko dénke woon nam ko dénke woon nam ko fase woon mm. noonu noonu la la koy delloo mm. nga xam ne lii yow sa pas-pas la macha allah macha allah macha allah léegi léegi nag bu ci defee muy confiance mm-hmm. confiance mm-hmm. Euh, misaal mi ñu ciy joxe rek mm-hmm. si na mat xam nga bi ñuy bi ñuy ubbi Quds mooy Jérusalem tey jii nii Seydina Omar dafa amoon benn xaadima bu tuddoon euh, bu tuddoon euh, Muaz suma jum Muaz waay su ma jumul maanaam ilim di ko ubbi ji Seydina Aliou gis na ni Seydina Omar war naa mën a am ñaari gëléem mhm. war benn bi jox xaa xaadimam bi benn mhm. waaye dañ dañ dañ man benn gëléem laay am su ma su ma su ma waree ba sonn wàcc jox sama sama sama sama sama sama sama xaadima bi xaadima bi moom mi daal mi yaar mhm. ne ni ko waa yow yow yaa yor baytu maalil muslimin mi ngi sa loxo maanaam tey bu ko doxoon yow yaa yor yow yaa keesu état bi mhm. mi ngi sa loxo mhm. lu la neex defal ci mu ni ko déedéet bëgguma dajeeg ëllëg yàlla subhanahu wa taala mhm. mu ni yow Omar bañ la dénkee da ci doon def loo xamante ni si moom daal génn gëléem laay jël ma ma koy toggoo maag sama jaam bi ba maag sama mbindaan bi ba keroog bi nekk ci waaye loolu tamit sëtam di Omar ibn Abdul Aziz bañ ko ko dénk ko dénkee daaw la İslamiyet. télé bi mhm. ban lamp la taal lampu état lampu état bi taal ci mbiru dawla ba mhm. ah war mbiri mhm. lampu état <laughs> Omar Omar ibn Abdal ba lampu lampu taal ko man kat état bi doon sama mbiri bop sama lampu bop taal waaw kon ustaas ñi nga xam ne dañ leen a jox suñu alal ñu ci voyage di ci noos di ci demee xew di ci dem itti di ci doxi seen soxla ak seen njaboot ñooñu lan la leen lislaam lan la leen yàlla di xaare ëllëg yëmal xëy moo tax nag léegi képp koo xamante dañ laa dénk lañ la dénk ëllëg dinañ la ko laaj kullukum mas'ul wa kullukum raay kullukum raay wa kullukum mas'ulun an raayati koo gis ci yéen ab sàmm la kon alal ji ñu la jox dañ la ko sàmmloo kon waroo koo dugal foo xamante ni si lewut waroo ci jëfandikoo loo xamante ni si mbooloo mi néewul la nañ ko jëfandikoo kon oustaz li ma bëgg a dégg kon mooy ki nga xam ne maanaam dañ laa jox benn ministère woteel la budget budget boobu ñu la woteel essence bi ak ga ak téléphone bi ngi demee noonu yow xaalis boobu est-ce que yow war nga cee jóg ci dox sa soxlos bopp yow joo moom mooy mooy exemple bi mu la jox rek xam nga yow bu loolu daganul bu déedéet bu jaawale sa poos mhm. ak poosu jàmbur lii lii réew mi ñoo ko moom jox la ko ni la liggéeyal ñu ci nangam ak nangam ak nangam ak nangam waaye weer wu la ci dinaa la ci xuraan waman yaxulul mhm. yati bi qalla yowmal nee na képp ko wuruj mhm. la nga wuruj da nga ko gàddu indi ko yóbbal xiyam ñëpp gis ko xam ay milliards bari na ah, lool te dërëm bu nekk yàlla sama borom dina bari waa suppose yow mi xaalisu askan tey sept millions de sénégalais kenn ku nekk nga war ko remboursé wàlle dërëm ak xabim ci am mhm. oustaz loolu dina yóbbu de waaw xam nga misaal bi ma la ciy jox rek mhm. misaal bi ma la ciy jox gis nga borom al dafa yéex a dugg àjjana loolu nag Euh, Sidna Aïcha dafa déggoon euh, yeneen ci doon wax noonu borom alal yi yéex a dugg àjjana mm-hmm. Abdourahman ibnu Awf xam nga daa bari woon alal ñu mm-hmm. ah man na déggoon naa yonent bi ni ma da nga da nga sa sa dugg àjjana day gaaw ñu mm-hmm. ne ko la ko war a ko ci yoonu yàlla mu dugg àjjana hmm. moom Abdourahman ibnu Awf xool Sidna Ousmane fi jay si la xos la xam nga tabu nga jullit ñi keroog matériel bu am yor sax pour mën dem ubbee ji ko wallaahi amuñu ko amuñu ko wallaahi mais Seydina Ousmane nu mu def mhm. daf ne yonent bi damaa jël sama alal xaaj ko jullit ñi ñi mhm. dañuy jënd fas mhm. jënd ci ay matériel ba li ñuy lekk ba ñuy dellu si yëpp maa leen ko yoral moom Seydina Ousmane Seydina Ousmane la moo tax moo tax keroog yonent bi dafa kontaan ci guddi gi yëpp wallaahi ba mu paree ne maa darra Ousmane. wallaahi ba hada yow. wallaahi Ousmane yow yow yow yow yàlla toppatu la dara. waaw ma sëñ Tuubaa mu ne baata baata nabi yu caaxaan dafa ko jëlem moo tax da ngay gis benn barab boo xam ne daan fay fo mhm. nga gis koo xam ne ab jullit la la pour jullit la yor mhm. Mhm. waaye day mën a jël ab xaalis di ko fa sànni di ko fa sànni ñu koy for ndeysaan kon est-ce que pourtant ki mu dendal boo matul ki mu dendal añu réer am na soxla coupé nañ courant sax wallahi wallahi coupé nañ ndoxam nga dend ak moom te war koo mën a dimbali yow nga ne ko fu ñukk dem di ko yàq bu nag bu ñu nee ab nga sa ndax ndax Seydina Omar mhm. nekkoon koo xam ni ku ku ci ku ci ku la xam nga Seydina Aboubacar fekk na ñuy mbugal Bilaal mhm. ndeysaan ñuy mbugal Bilaal mhm. waaye tamit mu xalaf ko mbugal mbugal bu metti mais dafa ñëw jënd Bilaal bi ñu ko jëndee ba noppi Bilaal daf ni ko waaw da nga maa jënd ngir yàlla wala da nga maa jënd ngir sa bopp boo ma jëndee ngir sa bopp nag teel sama loxo yóbbu Mm-hmm. waaye nag boo ma ju boo ma jëndee ngir jëmmi suñu borom fa daani amal wallahi wallahi wallahi wallahi moo tax moo tax léeg-léeg mm-hmm. ab jullit mm-hmm. war jàpp ni moom ab jullit fan la koy jëlee fan la ko jëlee fan la ko war a def mais nag na xaar responsabilité bi nga xamante ni si moom ci xaar jërëjëf oustaz euh, Sadio Ba ñu lay sant bu baax ci waxtaan bu am solo bi ci ab jullit ginnaaw bi mu fàggu alalam mu lew hmm. war na koo xam fi koy dugal hmm. fi mu koy dugal nag mooy foo xam ni fu lew la war a doon bu ko deful foo xam ni fu lew lay doon ëllëg yamal qiyaam dana ci dajeeg suñu boroom mu réglé ko hmm. te nee na addis bi nee na ci waxtaanu Sadio Oustaz Imam nee na ëllëg yamal qiyaam doomu aadama lu mu jéggi benn jéego di dem fenn danañ ko laaj sa dund gi ci lan nga ko jeexal sa waxambaane bi ci lan ko ko jeexal sa alal ji ci noo ko faggoo ba foo ko jëlee baraa di ñëwaat ñu ci ba ci mujj na mooy sa alal ji ci loo ko financé kon ab jullit daal li ñu bëgg a dégg foofu mooy ab jullit war naa xam lu dagan ak lu daganul ndax bu xamul lu dagan ak lu daganul du xam li muy faggu lu mu demee kon lu ab jullit def rek na ko laaj parce que alu ala zikri in kuntum la taalamuun loolu moo war ab julit kon oustaz ñu ngi lay sant bu baax ci thème bu am solo bi euh, léegi nag oustaz suñu dernier tomb mooy mas masuli yi nga xam ni moo koy xaar moom jullit bi ginnaaw bi bi mu amee faggoo financé ko léegi nag lan moo koy xaar ci loolu bu dajee ak suñu borom ëllëg yam axyam ndax yàlla dana ko régler ci loolu wala déet ki nga xam ni tamit dañ la dénk keesu état mm-hmm. dërëm dërëm yooyu nga dajale contribuable contribuable askan bi ñu jël ko teg ko sa loos yow oustaz kooku nan la war a seeree loolu ba du amel benn jullit ak wala benn euh, euh, sénégalais du ko amel ak parce que Sénégal gi lañ nekk li ko tàmbalee ci njiitu réew mi ba ki nga xam ne moo nekk ci bureau yi di liggéey tey askan xaalisu askan bi jaar ci yow nan nga war a gérer loolu. mooy mooy comme ni ñu daanelee léegi rek. Mm-hmm. xam nga xam nga ab jullit mm-hmm. dafa dafa war a wuuteeg ku dul ab jullit mm-hmm. xam nga léeg-léeg sax ñun jullit ñi dañuy xaw a complexé mm-hmm. complexé ba bañ naan sax ñeneen ñi ñu gën a jub ñeneen ñu du jullit ñu gën a yaru xam nga loolu complexe la complexe weesu ko pour pourtant ak jub ci kan lañ ko war a séntu ab jullit ci ab jullit lañ ko war a séntu ci ci kan lañ ko war a séntu ci ab jullit lañ ko war a séntu waaye tey jii nii boo boo xoolee caaxaan yi ak foy bi ak yëpp daa mel ci jullit ñi li gën a bare dëgg la la jiw mi ngi def nangam mhm. pourtant day wax ne man ci pourtant bu royoon ci sëriñam mhm. def loola dëgg la ndaxte ñoom mhm. lu ñu musaa leer na ñoom la joxe ñoo ko moom wa yutaamuuna ala hubbi allah bihi mu sidna sidna ali la wajhahu mm-hmm. moom daf ñuy jàngal ci li nga wax léegi mm-hmm. Mm-hmm. ndaxte moom yàlla def na sax wërsëg wa tax ko woon a bari lool waaye jom jag fit wa ak gor ah, tax na daawul daawul daawul daawul tàll kenn loxo naan ko may daa barkeel daal wala daa barkeel dafa barkeel moo tax eh, benn bis ci weeru koor day dem liggéey mhm. ñu ràng ko nag am na ràng. waaw ah. mu dem jaay. su jaayee ba noppi jël bénéfice ba nag. Mhm. jënd ca jënd ca jënd ca lam cee jënd yëpp ñëw jox Seydina Fatima. Mhm. mu defar ci mu defar ci ndogo. pour ñu war ko ndogo moom moo ko Seydina Seydina Xasan ak Xuseen. ko defaree ba noppi nag ba ba ñu dog seen koor ba war a ndogu. ndogu ndogu bu ñu war a dem ba war a ndogu nag. Ah, yërmande jë mhm. ak ca baax ga mhm. Sayyidatna Fatima jox ko ko lépp ca ñetteelu fan ba mu xëy dem liggéeyiwaat mhm. defaat noonu ba ñu war a dogg ah beneen beneen beneen beneen kii ñëw njëriñ yëkkati jox ca ñetteelu fan ba mu defaat noonu ne su di benn prisonnier ñëw jox ko ah, ah yàlla nag addu kan na ko jox jox na ko miskin mm-hmm. de mm-hmm. ak kan ñu jox na ko yetim de ak kan ñu jox na ko benn te nag ñoom bañ koy def mm-hmm. bëgguñu woon def ko ba pare te loolu ñoo ko moom de bëgguñu woon def ko ba pare bëgg ku leen ci tagg kon gistal bi boo ko dee def rek parce que am na alal yoo xam ne sax yaa ngi koy joxe leer nga yow boo ko ñàkkoon doo ko defee parce que léegi alal ñu muy dikke ci yow ak ni nga koy financé bu la leeroon ne noon nga ko ñàkkee doo ko defee kon oustaz Ba bokkul ci mbir déedéet maanaam jullit bi dem ci bërëbu tànt yi ma di ko baax di def def sharaf di puukariwu bokk na ci bokk na ci ëllëg wala bokk na ci jikko yi nga xamante ne si ci la ci la seetaan day jaar ba daaneel ak jullit ngis tal ba fii dama ne la wa yutimuuna taama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira lu tax ñu koy def innamaa nut'imukum li wajhi llah kon bu fekkente ni si dangay joxe ngir jëmmi suñu borom dañuy wax ni sa loxo ndijoor bi sax gis bu jàmm kon alal ji bala la leeree ni ñun ñëpp ñoo dajaloo jox la ko ngir nga defal ñu nàngam kon ñu lan la sant royente bi sallallahu alayhi wa bëggoon képp ku di jullit nga wuute keneen ku di jullit dafa mel ni ñun jullit ñi rek bëri ci ñun laa wax ko ñëpp nag mm-hmm. ñu ci bëri ci ñun mm-hmm. su su suñu dénkee benn poste mm-hmm. dama mel ñun dañuy yàkkamti xam nga yow ñu dénk la benn poste poste xaalis say mbokk yëpp dajaloo la ko laaj naru ñoon moom ñoom tey dafa la ñeen a jële ci lëndëm dugal leen ci oustaz loolu bëggoon naa la ko laaj dañu waroon a tiit naroon naa la ko laaj wallahi dañoo waroon a tiit ah? fal la poste benn rek nga poste xaalis dafay génne bokk kontaan mhm. loolu mooy kon tey eh, fas yéene na noo bànneexu ci alal yoo xam ne si léw te alal gi nag alal askan oustaz boobu damay profité rek let ci benn benn benn benn xissa waa ji waxambaane bi daal dëkk góor gi ci iliman bi sax laay wax benn iliman mu na ko mën daal góor gi damaa am imam damaa am benn million boo xam dama koo dénk bëgg a dénkaane te xam naa ni eh, yow yaa ci gën a gën gën a gën a doy ah, bi ñëwee <laughs> euh, ilimaan daf ko ni waatal waatal waatal ndax dama ko bi ah, daal am na lu ma ci loo maandu maandu maandu maandu buñ la ko déstabilité la ah, waaye du ak pal mooy misaal bi rek uh-huh. ab jullit dafa war a dafa war a suub mm-hmm. war rek mm-hmm. doylu mhm. te bu fekkente ni si doylu woo mhm. maanaam bu la doon jox ay milliards du doy imaam dafa mel ni suñu temps jeex na doomu aadama daal li ah. mën a fees biiram mhm. mooy suuf suuf la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax mooy moo tax jamono ji ñu sol na képp kuy fàggu alal na nga fexe ba fàggoon ko ci fàggun bu lew bu lew ndaxte aaxiru zaman bii ñu nekk alal ji bari na lool amin bi gaaw na lool waaye tamit boo ci boo wutewul fu dagan mën na laa jural ëllëg nga yàgg lool ci aw yoon am na misaal bu ñuy wax ni Seydina Omar bi am na ko ko gis ci gént ni ko man day fukki at a ngi nii ñu ngi may ñu ngi may xisaab te pareegu ma fukki at guddi ak bëccëg waaw guddi ba ñu may xisaab nii tëb tëb te pareegu fukki at moo tax suñu borom daal ay mbiram lu doy waar te alal tamit bokk na ca la wax ni nit ki bu fi bàyyi koo mm-hmm. wala bu fi bàyyi koo dinañ ko tënk di ko di di xaar ngir mu fay ay borom mm-hmm. feeg fayul bor yi nag du mën a jàll dañ koy jëng waaw non pas jëng dañ koy téye rek maanaam ma yërmande ji waroon a dox diggante moom mu jàll dañ koy mm-hmm. dañuy wax ne même bu soo jéggee siraat am na néeg boo xam ne lay toogloo xaar la ko xool bor fay nañ ko sag sag jullit war naa def moo tax ku dul jullit kuy julit ak ku julit waru warunoo bokk kon saa yoo ne man julit laa rek jël nga mhm. engagement boo xam ne engagement bu rëy la macha allah oustaz ñu Santo lay sant bu baax baax suñu temps dafa jeex allah ñu ngi sant ñu ngi nuyu baax suñu ak Aminata Diouf de ci émission bi jamono bu nekk wax dëgg yàlla moom njabootam yëpp hmm. Karim ñoom ñëpp ñu ngi leen sax ak suñu mag jooju nekk ci kër ga soxna si Diouf ak ñu nuyu baax ki nga xam euh, Rabi di ànd ak ñun ci émission bi waaye tamit bii nga saw suñu jarbaatu bopp day ànd ak ñun ci émission bi bu baax a baax a baax Rama Diagne mi ngi dëkk fii ci murit gi moom it di ànd ak ñun ci émission bi Awa Sall Muti Samb ak nga xam ne mooy Adama Sall suñu jarbaat ñoom it wax dëgg yàlla ñu ngi leen di nuyu baax soxna Ndey Diop fii bu ñuy wax soxna Ndey Diop mari ndaw moom it day ànd ak ñun ci émission bi di ñu teewlu bu baax a baax maam Antalo suñu jaar suñu rakk moom it ma nga nekk ba parcelle di ànd ak ñun ci émission bi di ko bégg bu baax a baax waaye tamit sa sëñ bàyyi lii moom it wax dëgg yàlla xam naa liñ tijjul eh, kii bi moo tax moom it antenne moo tax kiiwul moom it day ànd ak ñun émission bi ak ki nga xam ne mooy Cheikh si sëñ Mañang Fall ñoom it ñëpp dañuy ànd ak ñun ci émission bi waaye di nuyu baax suñu mag Souleymane si di ànd ak ñun ci émission bi di nuyu baax sëñ Pape Euh, suñu mag di borom këru Ndey Faatu moom it wax dëgg yàlla tey dafa ni woon dana dana dugg ci émission bi am lu mu laaj oustaz xam naa tey incha allahu rabbi xam naa dañ koy jàppal idda beneen rek incha allahu rabbi euh, ak ki nga xam ni mooy euh, astu Mbakke Njaay moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax mëtti caam ñoom it ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ci ànd gi ñu ànd ak ñun mm-hmm. ndumbu amar suñu mag bopp dëkk fii ñoom it ñu ngi koy dagg ki ne conté suñu bàjjan suñu umpaañ ñu ngi koy sant baax moom di ànd ak ñun suñu yaay bint Diouf mi ngi dëkk fii ci école bi moom it wax dëgg yàlla yor fi machine wol di jàmbaar jigéen la ñu man góor moom it ñu ngi koy nuyu baax di ànd ak ñun ci émission yi fu ñu tourné it wax dëgg yàlla mu ñuy euh, encouragé ci liggéey bi maam euh, Jaara euh, waaw waaw waaw waaw muy jàmbaar ñu ngi waajal kii màggalu maam Jaara bi màggalu maam Jaara la dëgg la incha allah war bi ñu ngi leen waajal benn spécial plateau boo xam ne dañ ko séq ak borom xam-xam yi nekk dëkk bi incha allahu rabi ko demee nii euh, Mame Goor jaam ak euh, man dinañ fi waajal benn plateau bu am solo boo xam ni invité ñenn ci daayira yi nga xam ne ñooy daayira maam Diarra yi ñu ànd ak ñun fii ci plateau bi incha allahu rabi ñu def spécial maam jaara waajal Porokhane 2023 ñu koy wax incha allahu rabi ñaan yàlla suñu borom euh, yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam le 2 février la incha allahu rabi di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mom rek moom mas nek khalifa xalifa nek khalifa Cheikhul Khadim mom rek mo yalla na insha allah allahu rabbi oustaz suñu temps dafa jeex lan moy sax kaddu gu mujj kaddu gu mujj rek di di sante bu baax suñu borom bi mm-hmm. ñu maye ñuy waxtan ci diin mm-hmm. waaye da di le sante yow tamit bu baax yow mi nga xam dem nga ba tok xalaat bi mm-hmm. eh, ci suñu ci suñu jëm ju xew suñu xam-xam bu néew xëy war nañu mëna tok alaaji moom mi nga xam ne moo ubbi lu mel nii ubbil fi buntu tamit lislaam boo xamante ni dañ fi mën a jox waaw ñu ngi sant tamit suñu waa kër suñu yaay sant suñu soxna suñu soxna cekk waaye di sant tamit soxna soxna sama sama rakk man ci kër gi ñu ngi leen di sant bu baax a baax sant waa kër gi yëpp tamit sant sant waa jàkka ji ci mel ni Badara Kane sant sant waa jumaa ji tamit ku baax tamit ji wax dëgg yàlla ak euh, temps bi nga xam ne may nga ko ñi nga xam ni mooy euh, téléspectateur Thiès TV waaye may ko askanu Thiès nag laa wax ndax télé bi dem na ba Ndiobène waa Ndiobène ñu ngi leen di ziar bu baax waa Ndiobène waa Thiawène Thiawène waaw Thiawun la ñuy wax ñu ngi leen di ziar baax ñoom mu niiru Thiaw euh, gaa yu baax yooyu macha allah ñu ngi leen di ziar ñoom ak waa Ndiobène ak ñi nga xam ni mooy fàttin suñu jigéen bu baax boobu moom it ñu ngi koy nuyu bu baax ak mbooleem koo xam ni sant na caw wala mu sant jóob wala mu sant fay wala mu sant Diouf te nekk njóobeen rek ñu ngi leen di ziar bu baax a baax fa laa jóge léegi incha allahu rabbi muy ñoo xam ne ñoom it ñuy safoo Thiès TV lañu di nuyu bu baax a baax képp koo xam ne nga fa yeewoo rek waaye di nuyu bu baax euh, soxna aw juuf suñu jigéen di nuyu baax suñu yaay euh, soxna Fat Thiam waaye di nuyu baax suñu rak ki nga xam mooy Kiné Diouf ak ki nga xam mooy Anta ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar ak Rama Diagne ak euh, As Diouf ñoom ñëpp ñu ngi leen di bu baax a baax di nuyu bu baax comme ni ma ko waxee woon wéeti ji suñu mag suñu sëriñ di suñu xarit muy sëñ Modou Ngom jàmbaar ñu koy sant bu baax a baax dal na yàgg suñu gën a taxawu waaye di leen euh, wax bu baax ni nañu waaj euh, plateau bi nga xam ñu ngi koy kii bëgg ci ànd ak ay sponsor nag incha allahu rabi ñu ànd ak ñu ci spécial plateau boobu bépp bàyyi daayira boo xam ni daayira Maam Jaara nga te bëgg ànd ak ñun ci plateau boobu ñu ngi lay jox suñu numéro incha allahu rabbi euh, 77 057 53 00 wala suñu numéro whatsapp mooy 76 363 65 54 incha allahu rabbi ñu jokkoo incha allah ñu wax la nan la ñuy ànd ci plateau bi ci kattanu yàlla suñu borom di waajal Porokhane 2023 di le 2 février incha allahu rabbi di sant bu baax ñi nga xam ni ñoom la ñu àndaloon ci ñi nga xam ne ci caméra bi ko demee ni Fadel l'infatigable ak ki nga xam ni mooy Cheikh Ndiaye moom it l'infatigable ma koy sonal ni ma koy wax rek chèque bi incha allah bi jëmbul wala 2023 incha allah wari dina ñëw ma jox la sa di sant bu baax Mouhamed moom it wax dëgg yàlla tey dafa tardé dama koy alamaan waaye nag dafa dafa nekkoon ci yeneen liggéey moo tax incha allah di nuyu baax Seydou moom it wax dëgg yàlla da doon ñaanal yaayam Eh, da doon ñaanal eh, yaayam tey ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla suñu borom nungu ñaan gi di nuyu bu baax El Hadji Malick Wade kilifa tele bi ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla guddal fanam vraiment émission yi mënoon ni émission yi nañ koy sponsorisé ba du mën a am waaye dafa ne na ngeen jël seen temps di ko may askan bi ndax askan bi kat wax dëgg yàlla ñu ngi leen sa safoo di leen faale loolu tax ñu am ci ak cawarte waaye di woo ay sponsor ñu ñëw ànd ak ñun ci émission bii di émission diine ñu def ko li wëcc lay xaasatan wax dëgg yàlla ñu jàllaleel leen tamit seeni mbir yi nga xam ne moom la ñu liggéey ngir mu gën a siiw bu baax a baax di nuyu baax El Hadj Moussa Wade di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam waaye tamit sëñ Pape Sila ak ki nga xam mooy directeur de programme moo xam ne mooy Samba Si ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di ñaan yàlla suñu borom yàlla nañu yàlla taw ci kaw taw ñu suuf yaa ne wakun amaami wakun xalfi wa fi wasati wa fi yamini si maliyaar ji yekku nii di jaale bu baax sunu mag Modou Dieng ak Adama euh, mi nga xam ni moom la doomam wàññeeku léegi bi may ñëw fii la ñuy laay dégg ñu koy jullee mënuma woon a Adama Diallo la doomam faatu sànq rek ñu koy doon jullee di ko waaju yóbbu wallaay oustaz di ñaan yàlla sunu dañ ko fàtte waaye fàtte xaju fi wallaay fàttu rek muy ñi nga xam ni moom ñoo daanu xippeelu àjjana leen yàlla gën a muñ te euh, féete leen fi leen seen njaboot boobu féete woon képp ci dal rek yàlla na yàlla dara yàlla na ko yàlla suñu borom di leen jox daje incha allah war a ajjuma incha allah war wi ci même heure même fréquence fii ci Thiès TV ànd ak seen mbokk jullit mbokk talibé Mouhamadou Sy nga xam ne amul kenn ki ñaan sopp ñëpp di ñaan yàlla ñëpp am jàmm na ko ñëpp am wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala